Gougne Niang ñu lay nuyu di la dalal ci réew mi. ah Fatou Baba maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay voilà euh, yow euh, tey ñu waxtaanee actualité xam naa euh, ngay secretaire général bu US coordonné tamit G20 ñu tegaat la ci bopp bi gannaaw renouvellement tey gis nga gannaaw concours général bi njiitu réew mi kàddu yi mu yëkkati ba ñuy distinguer ba ñuy jox ay distinction ndaw yooyu ñu jàpp ne ñoom ñooy meilleur élève Sénégal bokk na ci li nga xam ne moom mooy jàmmaarloo yu bëri yi ñuy nemmeeku ci eh, daara yu kawe yi waaye ci diggu doom yi eh, bokk na ci tamit tricherie gi nga xam ne lëmbe na ci examen yi ñu génn eh, tey jii nan nga jàngatee déjà discours njiitu réew mi. ah discours bi dama koy rafetlu. Mhm. dama koy rafetlu surtout point bi nga souligner. Mhm. li mu ci wax moom vraiment dañ koy rafetlu parce que euh, euh, école. Mhm. jàmmarloo waru faa am. xeex waru faa am li fa war a am moom mooy tàggat. Euh, ay citoyens. Mhm. ba nga xamante ne dinañ mën a amal njëriñ seen seen réew. Mhm. te kooku àndul ak violence. moo tax ñu def lu dul rafetlu ko. Mhm. waaye di wax nag au delà de condamnation verbale bi il faut que ñu créer toutes les conditions pour prévenir que loolu bañ a amati te su amee aussi ñu sanctionné ba nga xamante ne ne keneen dootul xalaat euh, defaat ko loolu daal lañ ju gis. te yow jàpp euh, ngeen ne sanction bi dina tax ndaw yi ñu daal di bàyyi carrément lii di violence yi. non xam nga sanction yi rek du du du du seule mesure bu ñu war a jël. Hmm. dañu war a sax créer les conditions pour que faute bañ a am ba sanction di ci war a war a war a war a war a topp. Hmm. Hmm. su doon suñu sàkku dañuy créer toutes les pour loolu bañ am parce que su violence dafa am aussi mais am na lu ko wundu. loolu ko wundu nag la ñu war a wutal saafara ba nga xamante ne ne du du du am su amee aussi euh, parce que euh, société la ñuy la ñuy dund il faut que mu am parfois ay dérives su amee aussi nga wan ñëpp ne lii warul am. par par par par la sanction. Mhm. dissuader ñëpp ñoo xamante ne waroon nañ ko mën a xalaat. Mhm. génne ko ci seen xel. Mhm. moo tax euh, sanction bi euh, benn forme de de de de de de de lutte la mais la li ñu gënoon bëgg moom mooy mu am prévention ba nga xamante ne du ñu àgg foofu. tey jii li jëm ci te kooku état bi am na moyens yi. c'est-à-dire lu lu lu lu mu laaj ñu def ko. créer les condition vraiment parce que même promiscuité bi ngay gis école yi. mais ay problème la. manque manque manque de moyens yi ñuy gis ay problème la. Mhm. manque de motivation élèves yi ak enseignants yi problème la yooyu yëpp day day day day day déteindre ci ci ci ci ci ci ci mentalité wu xale yi. Mhm. parents d'élèves aussi am ci part. gis na kat ne par exemple ñi nga xamante ne ñoom ñooy agressé enseignants yi euh, parents d'élèves yi parfois du ñu du ñu du ñu yar seen doom yi aussi seen kër loolu aussi dañ ko war a souligner. wax ne parfois même damay wax ne que sax euh, waxuma la élèves yi mais parfois am na ay parents d'élèves yoo xamante ne dañuy agressé enseignants yi. Mm-hmm. yooyu yëpp ci manque manque manque manque manque d'éducation la moo tax ñuy wax ne que ne prévenir moo gën su pré suñu defee prévention nag ba benn moment euh, mu am ay dérive dérive yi aussi ñu wut ci saafara sanctionné d'une manière ferme. li jëm ci tricherie bi nan lañ ko mën a. Euh, mais c'est la même chose manque d'éducation la encore une fois dama ne la foofu li li xew ci ba élèves am audace agressé enseignant wala agressé surveillant am wala euh, euh, en tout cas agent euh, d'encadrement yi loolu yëpp manque de d'éducation la te responsabilité dañ ko partagé société bi d'une manière générale moom moo prévenu problème d'autorité mooy posé wu fii mm-hmm. aussi bien au niveau de de de de de de la maison ba ba ba ci école ba mm-hmm. parce que nag balaa ñuy ñëw école ba aussi dafa am fu ñuy jaar foofu aussi il faut que ñu war leen tàggat teg leen ci yoon suñ leen tegul ci yoon su ñëwee ci école bi li ñu li ci mbedd mi wala jëlee ko ci seen kër moom lañ fay indi. ñu wax ci classe prépa yi euh, Sénégal boo moyul at mi ñu jëm dina ko am muy deux mille vingt deux li ni mel muy li ñu yëkkati tamit ci euh, ba ñuy jox euh, ay raaya ñi nga xam ne ñoom ñooy meilleurs élèves du Sénégal noo gisee mbir mi. ah dama koy rafetlu parce que man dama bëgg euh, sama euh, chef d'état ambitieux dama bëgg sama réew ambitieux. Mhm. donc il n'y a pas de raison mu am ay euh, école prépa ci feneen ñu ko fay def mu am qualité ñu ñu ñu ñu ciy réussir te ñun duñ ko duñ ko duñ ko mën a def. Mhm. donc suñu créer toutes les conditions. man je crois je crois que ne loolu lu baax la nekk ci réew ba institution bu ñu fi mën a teg rek te mu mën a booster qualité wu enseignement bi eh, ñun dañ koy dañ koy d' mais à condition aussi que ñu bañ ko euh, créer ba pare bàyyi ko mu nekk coquille vide wala du ñu créer condition yi nga xamante ne ne objectif yi ñuy fixé wu dinañ ko mën a dinañ ko mën a atteindre mm-hmm. mais encore une fois dañuy rafetlu cette ambition vraiment de créer les conditions pour que nit ñi jàngee fii surtout parce que exemple lu jaari soo bi wane na ko mm-hmm. parfois soo changé de cadre rek mën na changer complètement euh, désarçonné mm-hmm. complètement désorienté la mm-hmm. donc su fekkee ne mën nañu euh, tàggat suñuy suñuy suñuy ndaw tàggat boo xamante ne day ànd ak qualité kooku mu vraiment ñun dañ ko dañuy dañuy tàccu dañuy dañ ciy kontaan. seen mbébét mooy loolu maanaam ñu dem ci créer les conditions mais tey jii bu ñu jëlee li fi am muy réalité ndax tiitu leen prépa yooyu classe prépa yooyu la mu niroog suñuy université yi fi nekk. loolu nag dañ ko war a dañ ko war a éviter xam nga tey rek am na ay école privée yoo xamante ne génne nañu ay étudiants yi nga xam ne dañ leen fa orienté woon. Mm-hmm. loolu wanee na ne exemple nekk ne su fekkee ñu bëgg lu baax il faut que ñu jël ay moyens def ko ci mm. ah, école bi dafa war a nekk priorité te kooku day day lay laaj ñu am ay moyens non seulement état bi génnee lu doy waaye ñu wut aussi ay moyens additionnels def ko ci mm. parce que nag quoi qu'on dise aussi su fekkee da nga bëgg euh, euh, atteindre ay objectif da ngay créer ay mesures ay ay ay ay conditions yoo xamante ne la permettre nga nga nga nga nga atteindre leen mm-hmm. te kooku dafa laaj ay moyens kooku moom dañu koy wax du manière claire net mais nag loolu taxul ñu bañ a euh, ñu ñu ñu ñu condamner euh, le fait que ñu ñu ñu am cette ambition la hmm. parce que am nañ fi aussi ay écoles yo xamante ne quand même réussite lañu. comme yan léegi mën nañu ser d' école mën naa wax Mariama Ba Charles Thiororé. Mhm. mën naa wax euh, euh, lycée d' euh, excellence bu bu bu bu mhm. parce que école boo xamante ne da ngay da ngay def examen def cent pour cent mais kooku rendement bu bu bu la. mais terewul terewul dañu créer conditions yi. pour terewul monsieur Niang jafe-jafe yaa ngi fa maanaam condition yooyu ngay wax mhm. xale yi rempliruñu yëpp man je parle justement ci école Mariama Ba bu yàggul wax. waxtaan mmh. naa ci ak ay parents d'élèves ñu amaloon ci mmh. émission bu yaatu condition mmh. d'études yi euh, c'est vrai que li euh, lycée d'excellence bañ ko joxe statut bi donc euh, gulet après après li nga xam ne mooy concours général bi mais ñoo ngi ñoom it ci ay jafe-jafe loolu nag ndax tiitul leen ko mu topp classe prépa yooyu waaw xam nga moo tax ñuy alerter ñuy wax ne kat ne nañu def classe euh, prépa yooyu mais nañu nañu nañu créer conditions yi pour que élèves yi ak enseignants yi nekk dans de bonnes conditions mm. d' enseignement apprentissage nañ ko mm-hmm. environnement bi nañ ko nañ ko nañ ko créer euh, couple enseignant enseignants yi ñu nekk ñu motiver leen ñu nekk dans de bonnes conditions pour mën a jàng-jàng bu dal boo xamante ne ne finalité moom mooy ñu am ay résultats yu baax mm-hmm. kooku moom wax nañ ko mm-hmm. waaye encore une fois lool du tere ñu am war am ambition comme yeneen dëkk li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy jël suñuy doom yi di leen yóbbu extérieur. Mm-hmm. mais su fekkee ne mën nañu créer conditions yi fii kooku vraiment euh, ñëpp ci war a ànd. Mm-hmm. te encore une fois euh, euh, une fois n'est pas coutume mais cette fois-ci dañu ànd ak ak président la République. na nañu créer condition nañu créer ay ay ay ay euh, école yoo xamante ne dinañ senuy doom dinañ fi mën a toog jàng fi ba pare am nag ay résultats yu baax. Mhm. loolu ci résultats yooyu le sax baccalauréat beeg BFM bi noo ko jàngatee résultat wu ren yi euh, nee nañu booy xool jëm ci baccalauréat bi euh, ba muy dafa gën a wàññeeku boo comparé daaw noo ko jàngatee. ah soo comparé ak daaw effectivement dañu gis euh, li ñu constaté moom mooy dafa wàññeeku mais wàññeeku boobu ñun bettuñu. Hmm. parce que résultat bi ñu am nii moom la ñu amoon en deux mille dix mille vingt nag li ci bees moom mooy gis nga bi euh, mbas mi ñëwee. Hmm. Hmm. dañu éclaté classe d' examen yi. taux d' encadrement bi gën a élevé. Euh, enseignant bu nekk nekk ci classe ak vingt élèves donc encadrement bi gën a rapproché loolu mën na expliquer entre autres li tax élèves yi génn ci. Mhm. y a aussi TIC euh, euh, bi aussi utiliser nañ ko d'une manière euh, plus soutenue ba pare élèves yi nga xamante ne aussi dañu nekkoon situation boobu am nañu réflexe. xam na ne nekk ñu ci dans dans des conditions excellentes peut-être ñu def un effort de plus. Mhm. loolu moo expliquer résultat yi ñu amoon mais man damay wax ne sax même résultat wu daaw yi baaxul parce que pays bu normal. Mhm. su dañuy def jàngale jàngale mu nekk jàngale boo xamante ne norme bi moom mooy pédagogie mais même même quatre vingt pour cent soo ko amee lu baaxul parce que vingt pour cent d' échec baaxul. Mm-hmm. parce que dañuy wax euh, réussite bi mais échec bi aussi dañ ko war a jël en compte. vingt pour cent des élèves ñu ñu ñu ñu ñu amuñu amuñu amuñu lijaasa war a war a war a war a war a xoolaat leneen. Mm-hmm. loolu dafa bëri moo tax en France wala les pays yi nga xamante ne dañu am ambition. Mm-hmm. am école de qualité. ñoom du ñu accepter quinze pour cent d'échec d'échec te te te te ñoom li ñu bëgg ñun noonu la ñu war a bëgg. war ñu ñu ñoo leen ñoo nekk ci seen suuf. Mm-hmm. te xam nañ ne enseignement moo ñu mën a génne ci lépp. moo tax ñu wax ne que ne vraiment suñu rendement scolaire dañ ko war a xoolaat créer un environnement favorable pour loolu. bu boobaa lan ngay wax école bi nga xam ne ñoom amuñu benn at mi euh, ci fem bi ñu génn. kooku daal euh, ga suñu ko bu baax a baax a baax a baax waaye xam naa lenn daal moom mooy. Mhm. gis naa ne prolifération wu école privée ku jóg rek ubbi sa école privée te doo nekk jàngkat doo am ci ba ci am benn euh, euh, expérience mais commerçant ngay doon c'est-à-dire da wut xaalis te kooku état bi moo war taxaw tem pour que loolu bañ am képp kuy ubbi école rek. Mhm. war nga créer ay conditions normes am na ay normes ñu teg normes yooyu da nga ko war a pour mën a ubbi. waaye dañuy bàyyi ku mu neex mu ubbi mais euh, su boobaa nag ba pare nag jël ay enseignants yu leen neex parfois duñ nekk sax ay enseignants teg leen ci kanamu élèves yi mais kooku nga nga nga ñu kapote la kooku warul nekk metteel ci kenn. moo tax ñu wax ne état bi yëppam moom mooy responsable parce que moom moo war a contrôler les écoles privées ku ci warul ubbi waroo ubbi ku créé wul euh, ku respecté wul nga bañ a ubbi kooku c'est pour protéger les Sénégalais et protéger l'école sénégalaise d'une manière générale. kon daal yow euh, ñaawlu nga le fait que école yi di gën di bëri te amul contrôle. bien sûr kooku si lay indi ba pare nag day day day yàq même réputation école bi d'une manière générale. école privée publique yëpp état bi moo war a parce que moom la ñu dénk njàng meeg njàngale bi. Hmm. donc dafa war a créer condition kuy ubbi rek mu am droit de regard te su su droit de regard boobu da koy permettre mu contrôler su dee yaa ngi ci respecté nga nombre yi mu permettre la jox la autorisation su fekkee respecté woo ko nag mu mu tere la nga nga def. Gougne ñaa ñu jeexaleeg tenue scolaire yi nga xam ne coow li jamono ji moo ngi lëmbe fayagul euh, ñu ne euh, dix milliards ngir ñu teg ko ci. ndax lu mais e-, Elisabeth yaa ngi wàññi du dix milliards trente milliards la parce que dinañ ko étaler ci trois ans. comme deux mille vingt deux tey jii noo jàngatee mbir mi ndax lu ñu lu ñu soxal la jamono ji man ñun kay dañu dañu dañu dañu dañu waaru dañu jommi baax dañuy wax ne que ne état globalement war na am ay experts ak ay conseils yoo xamante ne ñu am au moins sens su priorité. kon da nga jàpp ne yedduñu leen. non yedduñu leen ba pare dafa mel ni li leen vraiment ñoom dafa mel ni nekkuñu ci ci dëkk bi. <laughs> école boo xamante ne ni problème yi foo laal day métti foo laal day métti nga am ay élèves yoo xamante ne ne war war nga leen wutal ay tenues hmm. mais ñoom am nañ tenue ba pare man rarement laay dem ci école même dans les écoles privées yi sax seen inscription dañ ciy boole hmm. am ay yoo xam ne dañuy dugal seen loxo ci école yi di joxe ay tenues. Hmm. yoo xamante ne dañuy def effort. comité de gestion yi def effort ba seen euh, euh, élèves yi am ay tenues. mais état bi lu muy daw bay daanu. su dee am na trente milliards yoo xamante ne mën na ko financer mais fi mu ko mën bi maa ngi lay wax ne que ne taux d' encadrement bi moo nekk à l' origine de de ñu am mais na ko def foofu. Euh, solde lu mu war a solde ak euh, le le accord ak enseignant yi. Mhm. mais na ko def foofu. abri provisoire yi nga xamante ne ñi dañuy jàng ci ay kër teg su commencé taw kenn nootul toog ci ci ci table mais na ko ci def li mu li mu mën. environnement am ay écoles yoo xamante ne amuñu ndox. Mhm. amuñu toilette vraiment fu ñu mën a def trente milliards dafa bëri ba nga xamante ne xalaatuma ne xalaat def ko ci tenue euh, euh, war na mën a ji war na mën a ji li ma ci naqare nag. Mhm. moom mooy ñu biñ biñ ko waxee ñëpp dañu jóg condamné ko ko si dépp syndicat yi euh, ñëpp condamné ko ne vraiment nañ ko def feneen idée bi sax mën na am baax na parce que dañu bëgg a yemale ñëpp idée bi baax na mais du priorité ministre bi jëppam insister. insister ne dañ koy dañ koy dañ koy def du noonu la ñuy la ñuy doxalee dëkk da ngay xool am sens responsabilité def su fekkee ne amuñu lu lu lu doy. Mhm. nga xool fi nga xamante ne moom moo gën a jàmp nga def ko fa. Mhm. mais tenue yi moom franchement je crois que ne def ko ci euh, c'est manqué de de de sens de de la priorité. Gougne Niang ñu lay jaajafal bu baax a baax. jërëjëf.